sont liés par des liens de sang, liés par l'histoire, liés par euh, même la géographie, parce que ce qui nous sépare, c'est une frontière naturelle, mais les esprits sont en parfaite combieuse. Euh, nous considérons que la Mauritanie a reçu un grand hôte et nous espérons être à la hauteur de tout ce que le marabout, le porte-parole, attend de nous. Donc c'est une fierté que Rosso, Tigint, Nouakchott, toute la Mauritanie ait été choisie par le porte-parole euh, parmi les étapes de sa, de mission. Donc nous considérons que vous êtes euh, chez vous. Nous lui présentons, euh, nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu'à la délégation respectable qui, qui l'accompagne. Il est inutile de vous rappeler que la commune, euh, Rosso en entier, se met à la disposition euh, de cette euh, honorable délégation et nous sommes prêts à apporter tous les concours et tous les secours, mais aussi toute la diplomatie nécessaire pour que votre séjour se passe très bien. Nous sommes vraiment honorés et nous vous remercions pour ce geste. نحيي رئيس البلدية باسم فضيلة الشيخ محمد البشير الناطق الرسمي للخليفة العام للطائفة المريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره وكما تعرفون فإن هذه الزيارات قد بدأت منذ سنوات بأمر من الخلفاء وذلك تقوية للعلاقات الجوار وعلاقات الدين وعلاقات الأخوة والمحبة بين البلدين فالشيخ محمد البشير يقوم بهذه الزيارات وخاصة في هذا العام بأمر من الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ محمد المنتقى وقد كما تعلمون أن الشيخ محمد المنتقى هو من أبناء هذا البلد وهو من الذين أمضوا في حياتهم كثيرا في هذه في هذا البلد وقد تعلم هنا في في مبروك عند الشيخ مختار ولبلول وهو إذن يعرف موريتانيا ويحب موريتانيا كما كان جده خادم الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا البلد وكما تعرفون فإن الشيخ القديم كان يحب موريتانيا wa kaana laa yaktubu isma Mauritanie daa'iman kaana yaktubu yaquul arda saalihiin kaana yutliqu alayhim arda saalihiin wa kaana ya'tabiru aydan al ard ard allazi tunbitu al awliyaa الشيخ بنفسه كان يعبر هذه العبارات حبا لهذا البلد ولأهله فلذلك الشيخ محمد البشير جاء ila Mauritania hadihi almarra bi amrin min xalifati cheikh Mouhamed Almuntaqa waqad awsaahu hadihi almarra wa qaala lahu kuntum taquumuuna bi ziyaaraatin wuddiya wa ziyaaraatil mujaamala laakin hadihi almarra yajib an takuuna ziyaara rasmiya takuunu fi riaayati dawla almauritaniya wa kamaa taalamuuna fa innanaa ji'naa marraatin wa marraat ولكن في كل مرة نرى رعاية الدولة الدولة والاهتمام الدولة بالنسبة لهذا الوفد وبالتسهيلات التي يقومون بها تجاهنا والشيخ في هذا العام إن شاء الله ستكون هناك ندوة ثقافية مريدية تقوم bi sanuqimuha fi yowm saamin ah, yowm aljuma alqaadim incha allah fi qasri almutamarat wa satakun hunaka muxaadaratayn muxaadara fi ma yataallaq muxaadara tataallaqu bililm mawqifu alcheikh alqadim fi nasri alsaqafa wa fi nasri alilm wa kama taarifuuna fa inna alcheikh alqadim ah, kaana yuhibu alilm wa yuhibbu al-ulama wa kaana jihaaduhu kulluhu nashru al-ilmi wa ath-thaqaafa al-islaamiyya wal-muhaadara al-ukhraa fiimaa yata'allaqu bil-'alaaqaat al-ruuhiyya bayna Mauritania wa Sénégal wa 'alaaqaat ad-diin wa fiimaa yata'allaqu aydan bis-silm al-ijtimaa'i aydan limaazaa li'annakum kamaa ta'rifuuna fi 'asrinaa haadhaa هناك تيارات كثيرة تيارات تقوم باسم الإسلام bismil jihaad yuriquuna dima wa hada laysa min al islaami fi shay hada innama haulaai yaquumuuna bitasatturi wara al islaam wa hum laysu hadihi al ashyaa alladi yafaluunaha laysa min al islaami fi shay imma al mutatarrif aw alladi yusammi nafsahu mujahid imma an yakuna jahilan la yarifu ddin wa imma an yakuna insanan يريد لأغراضه السياسية يقوم وراء يتستر بالسياسة بالدين وإنما يريد السياسة ولذلك أيضا تكون هناك محاضرة فيما يتعلق بهذه الأمور وبهذه التيارات وفضيلة الشيخ يشكركم يا رئيس البلدية ويدعو الله لكم أن تكلل جميع مشاريعكم بالنجاح wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi yéen ko gisee xam ngeen ne maire Rosso mooy ki nga xam ne moo fi ñëw mi ngi tudd Bamba Wulu Dramane eh, mooy ki nga xam ne mooy maire ros tey dañu ñëw Rosso ñëw fii ci dëkk bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Tikanti mu nekk diggante Rosso ak Nouakchott di dëkk bu nga xam ne dëkk bu am solo la dëkk bu yàgg la dëkk bu bari histoire la boo xam ne eh, am na fi ay kilifa yu fi nekk ci dëkk bi fii ñoo xam ne am nañu ay relation yu am solo seen diggante ak waa eh, am na fi koo xam ne tey sunu xarit bi fi nekk muy eh, Yeslem mi nga xam ne Cheikh Yaslim Yaslim Mouhamed Yaslim mi nga xam ne mu ngi fi ak wëllu butta ak euh, ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ak maire bi ñooy ñëpp suñuy wëlër lañ suñuy xarit lañ euh, sëriñ bi nag li ko fi tax a dikk rek moo di dëgëral euh, diggante bi rafetal diggante bi ak dëgëral diggante bi ndax Euh, yàgg nañ fee ñëw am na ay ati ati at yoo xam ne ñëw nañ ko fi defe naa ne ren jii moo nekk fukkeelu at biñ dalee ñëw ak Mauritanie ak léegi euh, yaakaar naa sax ëpp na ko ba ñu fi ñëw ñëw bu njëkk bi booba li waraloon ñu di fi ñëw jëmi seeni Saliou radiyallahu anhu yal na ko yàlla dolli leer moo waxoon ni moom day bëgg na diggante bi ñu gën koo dëgëral ndax seetlu na ni sëñ Tuubaa dafa fonkoon waa Mauritanie lool am cër bu mu leen jox ci boppam lool ba sax dëkk bi sax nit ñi ñoo daan wax Mauritanie di wax gànnaar waaye moom xëy na la ko tuddee woon daana dem sax ba egg ci di wax ne mooy suuf si nga xam ne daanaka dafa mel ni day meññi ay wàlliyu loolu lépp lu mu doonoon mooy bëgg gum bëggoon suuf si ba tax it moom ci boppam daan wax ne sama ñaari tukki yi ma am tukki benn bi nga xam ne moom laa tukki ci e, gaboŋ ak tukki bi nga xam ne moom laa tukki si fii ci Mauritanie ñaari tukki yooyu bokkuñu bee moom suñu borom dafa ma doon nattu di ma liggéeyloo waaye fii nag dama ma fee indi moom ngir fay ma ndax dama fee dikk fekk fi li ma gënoon a bëgg muy ay borom xam-xam fekk fi ay wàlliyu fekk fi nit yàlla yi nga xam ne ñooñu maa leen bëggaloon sama bopp lool yàlla màng ma ba indi ma ci ñoom eh, ma jaxasoog ñoom kon moom damay jàpp moom dafa jàppoon ne fii bi mu fi dikkee moom yàlla da ko doon fay si loolu nag sëñ Saliou ci boppam kon tukki bi daanaka moom ci moom la tàmbalee woon mu ne dama bëgg lu fa xewati bu ñu leen ko waxee ngeen dem ci waaye lu xewati fii dañ leen ko wax ñu di ci ñëw loolu moo sabab tukki bi ñuy def daan def fii ànd ak Cheikh Mahamadou Bachir di fi ñëw mat na léegi fukki at loolu it bu ñu masaan ñëw itam li ñuy ñëwee mooy dañuy ñëw dem ci xabaayil yëpp zawaaya yi mboolem foo ko foo xam ne rek sëriñ bi daana fa dem wala am na fa wëlëre dana sëriñ Bachirou dana jiitu ñu ànd ak moom dem fa dem nañ kër Cheikh Sidiya ci buti limit dem nañ Nabaxiya dem nañ Xomaak dem nañ ci mboolem dëkk yi nga xam ne moom la sëriñ bi daan dem yëpp dëkk yooyu dem nañ ci ci at yi nga xam ne moom lañ fi ñëw fenn fu ñu dem itam yeesal nañ fa kóolëri googu nga xam ne moo amoon diggante sëñ Tuubaa ak ñoom loolu itam mooy dox ba bisub tey euh, yoon wi nag dafa nekk yoon wu particulier moom ndax bi ñuy ñëw cheikh Mouhamadul Bachir mi cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy xalifa cheikhul Khadim radiyallahu anhu tey doon koo xam ne yàlla dafa dogal fii mu xam ko lool ndax réew mi dund na fi diir bu yàgg xam na ko bu baax a baax am fi ay xarit yu bari ñëwal fi boppam boo xam ne bokkut ak ba mu fi nekkee sax di sàkku xam-xam ñëwal na fi boppam mu xamal ko ne ko nag dama bëgg seen yoon woowu léegi bu ngeen dematee bu mu nekk yoonu dem nii rek waaye damaa bëgg sax léegi mu nekk officiel nga xam ne sëñ moo ko waxal boppam baat boobu man moo ko wax mu dégg ci sama làmmiñ dama bëgg ñu def ko yoonu officiel ndax kat ñooñu liggéeyal sëñ Tuubaa la dem gi ngeen fay dem na ngeen ko jàppee ni dangeen ngeen di liggéeyal sëñ Tuubaa ndax dëgëral gi diggante bi mooy fekk buum gu sëriñ bi dëgëraloon yeewoon ngeen di ko gën a dëgëral kon li ngeen fay def lépp li ngeen jàpp ne liggéeyal Sëñ Tuubaa loolu nag daal di nekkaat beneen yi bu yees boo xamante ne bokkut ak nañ fi daan dikkee loolu nag moo tax bu Cheikh Bachir bi fi ñëwee ndigal loolu mu ne ren nañ fexe ba def lu yees lu bokkut ak lañ daan def nañ fexe ba def fi benn waxtaanu xam-xam benn euh, conférence bu mag boo xamante ne nadwa bu mag a mag boo xam ne dañ fi def ñaari conférence conférence bu njëkk bi dinañu waxtaan ci lépp lu jëm ci xam-xam ak ni ko sëñ Tuubaa bëggee woon ak ni mu ko doon saare waxtaan itam ci relation bi nga xam ne moo am euh, la sëñ Tuubaa amoon ak naar yi ci wàllu ruux ba nga xam ne ñoom loola moo tax ñu fonk ko moo tax ñu bëgg ko danañ waxtaan itam ci lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu jàmm xam ngeen ne àdduna si fi ñu toll nii jaxasoo na jaxasoo goo xamante ne yéen a ngi gis ñoo xam ne ñu ngi leen di tuddee ay jihadis ñu nekk ci àdduna si di tuur ay deret même di tuur deret ay jullit nga xam ne boo seetee fi mu toll nii li ñuy tuur ci dereti jullit moo ëpp sax li ñuy toor ci dereti ñeneen ñi nga xam ne sax duñu ay jullit te loolu lépp ñu ngi ko jëlee tuddee ko lislaam te dara du ci lislaam lislaam diiney jàmm la lislaam diiney booloo la lislaam diiney bokkoo la waaye lislaam du diiney jaasi di xeex di reyanti ci loo xamante ne boo seetee ñu koy def ñëpp na tax di ko def dañoo fab politique teg ko ci seen kanam donc waaye doonul loo xam ne lislaam la loolu itam li koy sabab ak li koy waral itam dana bokk ci conférence boobu bu buñ koy ña koy def incha allahu taala danañ ca waxtaan ci loolu ba nit ñi ñu gën cee ubbi seen bopp ndax ñaar ñi ngeen ñaari ñi ngeen di gis suñu def loolu ñi ci ëpp benn duñ ñoo xam ne dañoo jàng ñi ci ëpp boo leen seetee ay nit lañ ñu nga xam ne dañoo am mer muñ def ci seen xol rek am na lu ñu leen def ñu bëgg a fayu te fokk ñu am lu ñu wone wone ne lislaam a tax ñuy xeex lislaam a tax ñuy jóg te fekk lislaam taxu leen a jóg lislaamam comme tax a jóg jàmm ngay indi ak fexe ba def ko bil xikma wal mawizati al xasane jooju nga xam ne moom la yàlla wax udo ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati al xasane xikma boobu moom mooy tax nit ñi gëm lislaam waaye euh, xeex ak xuloo yooyu yëpp moom maanaam taxut lislaam avancé du jëriñ dara kon loolu itam danañ ca waxtaan waxtaan wi ñaara koy def ku jëkk ki mooy sëñ bu Kébé mi nga xam ne sëtu Serigne Saliou la euh, euh, gone la ci ay at waaye du gone ci xam-xam ndax xam-xam xamul gone xam-xam xamul gone xamul mag xam-xam moom jàng la xam ku ko jàng rek xam ko mooy def conférence bu njëkk bi ci wàllu Sëñ Touba ak xam-xam ak ni ko doon tasaare ak ni mu ko doon doxee digganteem ak naar yi euh, waa waa Mauritanie beneen bi ci des suñu mbokku naar bu ñuy wax xaadi saylu mooy ki nga xam ne moo koy def Euh, moom it dana jëm ci wàllu euh, jàmm jëm ci wàllu sëñ Tuubaa ni mu doon taqwiyatul alaqaati ruuxiya bi yi nga xam ne moo amoon ak fexe ba it jàmm ji nga xam ne moo am ci suñu ci moo war a am ci àdduna si ak war a am ci mantiqa bi mu fexe ba loolu itam danañ ci waxtaan danañ ci waxtaan bu baax a baax moom xaadi saylum boobu loolu daal mooy li nga xam ne ci gàttal moo waral sëriñ bi jóg sëriñ bi nag nee na mi ngi sant bu baax a baax borom réew mi di Mouhamadou Wula Abdou Aziz di sant itam ki nga xam ne mooy réew man bàyyi ko ñoom ñaar yi nga xam ne ñooy ñaari réew yi di Macky Sall ak euh, moom mi nga xam ne mooy borom réew mii ci jàppandal yu baree bari yi nga xam ne moom lañ ñu defal bañ fi dalee ñëw nag ba tey jii fu nu jaar rek dañ nu koy yombal te lépp xam nañ ne moom kon loolu itam ñu koy yóbbanti cant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa li mu bëgg ci réew mi lépp ci ak projet yi nga xam ne moom la tëral ci réew mi lépp yàlla eggale ko ñu ngi koy ñaan sëriñ baa ngi koy ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha eh, ñun ñi nga xam ne ñu ngi ñëw itam di ay taalibe ñun ñëpp ñu ngi àndandoo ñun itam ci ñaan googu di ko ñaanal sëriñ bi itam mi ngi koy ñaanal yàlla yàlla eggale yéenam yëpp ndax moom itam gis ngeen ni muy def ci màggalu Tuubaa màggal gu jot dina yebal ab délégation bu mag délégation boobu bu ñëwee danañ andi ay seen participation bu wóor boo xam ne at mu ne yéen a ngi koy gis ñu di ko andi loolu lépp nag ak defar la ñu ne sëriñ bi neen mi ngi leen ciy gërëm bu baax a baax di leen ci sant